dañu dajelo ak euh, personnel bi yëpp ñu and ak seen njabot and ak seen xarit seen i am di jàmm pour jot seen caabi kër ci programme bi nga xamé ni que le quotidien daf ko def pour personnel am euh, programme bi lén rek moko wund modi que xam nañ ni que kuy borom kër li la gëna yittel moy fo duggal dugal sa njabot fo suturlu yow ak sa njaboot euh, ndaxte xam nañu luyas ni mu méttee ci borom kër weer ak weer ni mu jégué wa te bu fekkee jamono dafa metti kon nag noo ko gën a mën a woyofale nit ki euh, defe naa ni dina gën ci moom gën ci euh, euh, njabootam yokk ko dal yokk ko jàmm yokk ko xéewal ba nga xamee ni que la nga koy sant ci liggéey bi dina ko gën a matal moo tax programme bi mel ni bi ñu ko gisee ñu nii nag am nañ occasion ci programme bi nga xam état bi dafa ko tëral muy programme cent mille logements moo di état bi jël lu bari gàddu ko mooy lu jëm ci impôt yi nga xam ne société dañ koy fay

Euh, bi ñu am tey muy lu toll ci fanweeri kër yi nga xam ne dañ ko jox suñu ay employé ak suñu euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun démb ak barki démb programme cent mille logements la moo tax tey ñun ñu mën a jënd kër gi douze millions bi ñu jëndee kër gi douze millions nag dañ ne namit ñu war nañ ci dugal suñu loxo bi def na naam wàllam ñun nañ def suñu wàll moo di ko cinquante pour cent yi nga xam ni moom euh, la ñuy contribuer ci kër gi entreprise bi gàddul ko boppam su ko defee travers bi au lieu muy fay douze millions six millions lay fay six millions yooyu nag ñu ne nag tamit nañ ko ko jéem a yombal ndax kenn mënut a xëy xëy xëy na song sa poste génne six millions mais tey boo waxee ak ñoom ñu waxtaan ba ni leen mën nañ ko rembourser ci diir bu gudd muy fukki at euh, weer wu nekk nga fay cinquante mille francs defe naa ni yomb yomb euh, yomb na ci ñoom wala defe naa euh, sol salaire yu bari mën nañ ko supporter donc loolu moo taxoon ñu waxtaan ci ak personnel bi ba tëral condition yooyu moo tax bi ñu jëkkee ubbi liste amoon nañu lu mat fanweer ak juróom-ñetti nit yi nga xam ne bëgg nañu euh, ñooñu bi ñu ko seetee euh, ñu xool ñaata logement la ñu sage mën a jox bi ngeen ko gisee vingt sept logement xaw ma vingt huit ou peut yooyu la loolu la ñu ci jot ci stock bi euh, naam bëggoon nañ lu ëpp loolu maa ngi koy topp bés bu yàlla sàkkati ko soññi ci loolu mais seen logement yi dafa jeex ci phase bu njëkk bi léegi nag am na deuxième phase ba nga xam ne ñoom ñu ngi koy ubbi Euh, bu deuxième phase boobu sottee daañu leen ci euh, euh, baaxee pour ñu mën a am ci logement ci même condition que ñi nga xam ne ñoo nekk ci phase bu njëkk bi.